Fatima kàddu yango wala boog kàddu gàngoo voilà euh, kon mu ngoog euh, alhamdulilah kon ñu jël euh, li nga xam ne moom mooy tey jii li di suñu temu bés bi ak mag mi nga xam ne moom la ñu tànn ci magu réew mi di sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moom mi nga xam ne nag di fàttali rek ne mu ngi gën si àddina ci 28 yem mook weeru jumaadal ula atum 1891 kon si la daal di gën a see àddina ci euh, fi nga xam ne ni moom mooy euh, Touba ñu fàttali ne moom rek moom mooy euh, ki nga xam ne moom mooy doomu Serigne Touba Xaadimu Rasul bu juddoo fi nga xam ne moom mooy Touba. waaye tamit di fàttali ne moom euh, sëriñ bi def na ay def na li nga xam ne moom mooy euh, jàngum alxuraan ñu jàngal ko li nga xam ne moom mooy alxuraan ñu daal di ko tegoon ci loxoy euh, sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo fala kon jàngee li nga xam te moom mooy alxuraanul karim daal di nekk nag koo xam ne bay na waaram bu baax a baax ci li nga xam ne ni moom mooy yoonu murit moom sëriñ bi nag mu ngi génn àddina ca Mbàkke Kajoor euh, ci atum 1936 yem mook mu tollook 18 euh, juin 1936 yem mook tamit mu nekk euh, benn fan ci Zul Hijja mu génn àddina bi mu amee ñeent fukki at ak juróom kon bi muy génn mm-hmm. àddina nekkoon jeune waaye nag 45 euh, ans yi nga xam ni moom la ko dund am na lu am am solo loo xam ni jot na ko fii bàyyi ñun nag dañoo tànn lenn ci li nga xam ne moom mooy euh, ay waxam yu mu fii bàyyi ñu dem jëlee ko ci saadatul abra ci ab boo xam ni bàyyi na ko fa foofu moom sëriñ bi mu ngi wax euh, wajaal iyaali wajaal iyaaliya ka misli nam li daal dina fii kusri wa awsaafi kamisli namli foofu nag euh, mu ngi euh, wax ci li nga xam te ni euh, moom mooy wàllum xorondom xorondom la daal di nag jëmmaale li nga xam ne moom la méngale ak njabootam dafa ne foofu sama njaboot dama bëgg ñu mel ni xorondom xorondom yooyu ñuy nekk waaye tamit ci ne ci nombre waaye tamit ci booloo booloo daal di nag liggéey moom loolu la wax ci noonu la ko misaalee dem ci li nga xam ne moom mooy na ko yàlla waxee ci sootu nam li mu mislaale li nga xam ne euh, sootu nam li fa ñu waxee ci xorondom ak xorondom tamit euh, dayoo bi nga xam ne moom la am xam nga dañuy wax euh, lii di xorondom dañuy faral di nekk nombre hmm. nombre boobu ñuy nekk si la ñuy defee lañuy def yëpp si la ñuy xàccee ndoo dóorandoo mu mel ni rek dem nga ci néegu xorondom fekk fa lu diis loo xam ne benn xorondom rek mënu koo yëkkati yóbbu ko foofu waaye dañuy nekk nombre daal di ko bërëm ba mu dem ca fi nga xam ne nii moom mooy néeg ba ñu daal di ko fa denc loolu nag ci voilà booloo waaye tamit liggéey booloo ak liggéey moom nag mu bëgg njabootam nekk ay comme ay xorondam hmm. nekk boolo waaye tamit nekk ñoo xamante ni dañuy doon ay euh, kon liggéeykat hmm. misaal boobu nga xamante ni moom la jox lii di wàllum xorondam ak dayoo bi nga xam ne moom la am day euh, fësal rek li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggam ci lii di wàllum euh, liggéey waaye hmm. tamit ci téere boobu moom doon na fa def tamit ay ay message yu bëri waaye tamit ay ñaan yoo xam ne da ko jagleel réew mi ñaan yi bokk na ci di ñaan li di tremblement de terre yàlla musal ñu ci ak yeneen i jëye yoo xam te ni day faral di di am ci àddina bi moom ñaan na ci euh, loolu nga xam ne mooy saadatul abraar si yàlla daal daal ñu ci musal bu baax a baax kon mu ngi noonu loolu lañ fi indi woon tey jii si euh, moom mi di Mouhamadou Lamine baara euh, suba incha allah moom mooy doon màggal gi si Ganesek àddinaam ndax euh, loolu nga xam te ni bàyyi na ko fi ba bàyyi ko foofee ca Mbàkke Kajoor mhm. incha allah euh, dara duñ ci rumpu ndax suñu naataango Omar Kayre foofu la ñu too euh, teewal toogal ñu fa lépp lu jëm ci màggal gi rek moom dina ko fi indi incha allah waaye laata loolu damay rek jox kàddu gi suwaay bu jëpp mu mhm. daal di ci àddu ci li nga xam ne moom la ñu indi tey ji ci sujet bi moom kilifa gi waaye tamit wax yooyu nga xam ne moom la fi indi xorondoom gi nga xam ne moom la misaalee njabootam mhm. ak bëgg njabootam ñu nekk ko jërëjëf taxawaay bi am na solo xam nga kilifa yi moom koo ci indi ci kàddu mag ñi rek mm-hmm, mm-hmm. da ngay yëg ni euh, mat na fi mu ñëw fi ndax ku ci nekk ci ñoom fexe nga ba sa njaboot bu dee yar yar nga leen bu dee jàng jàngal nga leen ku ci mel ne kooku nga tudd sëñ Abd euh, sëñ euh, Abd Daam Abdourahmane Lo nga xam ne lu bari ci njabootu ku tedd ki jàngal na leen mm-hmm. ñooñu bu doon lu jëm ci seen biir kese du jar sax ñuy bind yenn téere yi wala ñuy def yenn tomb yi wala ñuy def yenn fàttali yi mhm. mais yéene nit ñi jàmm ak yéen leen ak texe mhm. bëgg euh, jëfandikoo li yàlla naan jàllale leen sama message loolu leen jëfandikoo kon mhm. amuñu seen fay du ab télé wala rajo wala internet bu fa bu newoon ba siiwal leen waaye jëf ju baax moo dul suulu ba tax na tey ba fi ak ay milliards yi at saa su nit ñi ñëwee suñu sët sëtaat dañuy fa dañ leen di fàttaliku du ñu xewi moo tax jëf foofu la kii li mu indi nag ci xorandoom am na solo euh, euh, booloo maa ngi dégg béti ni booloo ah kay baat bi loolu la muy mhm. booloo dajale mhm. Mhm. nekk benn moo tax ma bëgg lool euh, aaya boobu nga xam ne sëñ Cheikh Tidiane si moo tax ma gën ko dégg muy wax waxtasimo bi hablillahi jamian wala tafarraqu bu leen tàqalikoo jàpp leen ci bu mu yàlla gi ñu ne waaw mu ñu nag bu leen tàqalikoo ndax ay nit mën nañoo booloo jàpp ci dara te booloo wuñu moo tax fàllu si yàlla na daan wax ni nit ñi ñu ngi booloo mhm. waaye bennoo wuñu mhm. maanaam booloo ba pare bennoo jàpp ci bu yàlla googu bañ a kii loolu daf lay jural ba bukki ñëwee wala ba gaynde ñëwee fekk ñetti nag yi bu weex baag bu xonq baag bu ñuul bi mhm. ngir bëgg leen a jëfandikoo te xam na ni suñu booloo du man ci ñoom dara dafa ñëw gis kenn ki ci pet bu ñuul bi ni ko xanaa gisoo sa taar bi dafa ñëw gis ñaar yu bu weex beeg bu xonk bi ni ko xanaa gis leen seen taar bi mm-hmm. xoola weex ni mu rafetee ak xonk ni mu rafetee mm-hmm. ngeen bàyyi ñuul mii mu leen di saboote mm-hmm. du ngeen ko kii ñun ko na dinañ la nga fàdd ko bañ ko bàyyee mu fàdd ko dafa xëy ñëw gis weex ni ko sa weex bu belli bii xoola ni nga mel ni nga fësee ni nga rafetee bu tawee ba pare ba ba mu ci gisoo ni nga rafetee di bàyyi xonk mi sa wet mu ni ko rayal mu fàdd ko ba mu ñëwaatee bu weex baa fa des négocié wu daa ñëw rek def liggéeyam. Mm-hmm. xam na ni kon tàqali ko am na. amatul doole góor gi dafa nekk mm-hmm. ci lalu sukuraat bay faatu woo ay doomam mun leen ku ci nekk na nga dem taxani maanaam nekk ci lalu feebar xam na ni dee mi ngi ñëw mun leen dem leen ngeen taxani. Mm-hmm. bi ñu taxanee ba ñëw mu ni ana say ñu ni mi ngi nii mu ni tekki leen ñu tekki mu ni ku ne na nga eh, damm matt gi nga yor ci ci say wi ñu tekki di damm. mu ni waa léegi nag boolewaat leen say yëpp yi ngeen taxanoon ñu boole ko mu nekk say yu bari mu ni mhm. jàpp leen ngeen dammal ma seen say mhm. ñu damm damm damm mënuñoo damm mhm. mu ni lii nag ab leçon laa leen ciy jox même su ma leen wanee ginnaaw bu ngeen booloo wii kenn du mën ci yéen dara day mel ni rek say yi ngeen dajale nii ba mu bari matt yi mënu leen ko damm ba àdduna tukki di ngeen ko damm kon booloo dafa am lu muy indi maanaam nañ booloo bennoo jàpp bu dëgër ku ci doon ku nekk buñ nangu tàqali ku lay tàqaleeg sa nit am na lu mu bëgg ci yéen ñaar mm-hmm. bu ko kenn nangu moo xam jëkkër ak xarit ak morom ma mm-hmm. bàyyi ak doom mm-hmm. ku mu doon ci ci ci àdduna bi rek bul nangu kenn ku la tàqaleeg sa mbokk mbooloo moom mooy euh, doole ba euh, yeneen tamit sax dañ koy wax ne euh, jullit ñi si si a mel ni ay briques dalay wan ne rek ne foofu dañu war a ba kenn du leen mën a atteindre lu bari si lu ñuy atteindre si ñàkk boolo ba moom moo koy waral Cheikh Bara tey jii ñoo indi koo xam ne sa turandoo la ndax yéen a bokk euh, tur bi euh, sëñ euh, Cheikh Mouhamadou baara Bara ak kàddu yi nga xam ne moom la fësal tey jii si li nga xam ne moo di wàllum booloo ci rawatina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njaboot gi bari na loolu tamit ay njaboot yoo xam ne dañoo dem a dem ba tasaaroo jamono ji ñu toll nii tey jii lan ngay indi ci ci ci cadre boobu. waaw ki ngay waxtaane mhm. suba ak jàmm incha allah mooy bisam. Mhm. Cheikh Mouhamadou Lamine Baara di doom ci sëriñ Touba sëñ Baara euh, ci sëriñ Fàllu euh, bokk ak sëñ Moudou Moustapha mi nga xam ne mooy taawu sëriñ Touba moo njëkk a nekk premier xalifa benn way juru soxna Aminata Baara bi muy nekk tànk parce sëñ Touba am na njaboot gu góor gu bari macha allah am na njaboot gu jigéen gu bari waaye amul benn doom boo xam ne doom nga ci sëriñ Touba ci ñi ko mag ak ñi mag ñëpp koo xam ne Touba nga juddoo maanaam sëriñ Touba benn doom la am bu juddoo Touba muy sëñ Baara ñenn ñi Daaru Salaam ñenn ñi feneen ak feneen waaye sëñ Baara daal mooy benn doom bi nga xam ne moom moom ci foofu jumaa ja nekk fi tolloog sooroorub jumaa ji boobu foofu la sëriñ bi nekkoon. foofa la foofa la gënee àdduna loolu nag ak jagle la kon goo xam ne sëñ tubaa moom sëñ baaraa ko ko defal sëñ sëñ baara maanaam sëñ tubaa ko yàllaa ko defal sëñ baara lay wax sëñ baara bi mu gënee àdduna tamit e, bi yàlla dafa dogal way juróomu jigéen ci niñ ko nettalee sëriñ bi dafa wax ne yàlla day munta ñàkk jël ci kër gi kenn tey daldi ci waxtaan ak yaayu sëriñ baara bi mu ko ko waxee ne ko ah, kër gi de kenn mënut a ñàkk a dem te booba sëñ Touba moo fa nekk ak way juru sëñ muy soxna Awa Bousso ak way juru sëñ Baara muy soxna Aminata Lo bi mu ko waxee soxna Aminata rek la ko ne ah loolu de euh, jurul di wax sama sama sama sama sama dëkkandoo bii ci kër gi loolu nag jigéen ñi war nañ cee jàngee ndax booba mënoon na ko ne ah man de déwuma wala waxal ak kee ba xam waaye da ko ne comme loolu moom ndigalul yàlla la jurul nga di ko wax Awa Bousso mi nga xam ne mooy way juru sëñ Fallou ndax Fallou day xale maa fi ne waaw ba sa man man ginnaaw yàlla dégg dégg naa ko baal ma dem. Mm-hmm. Euh, sëñ baara sëñ tubaa sëñ fekk booba sëñ baara mi ngi nàmp sëñ tubaa ne ko baara mii de boo ko fi bàyyee dinaa nekk ndeyam dinaa nekk baayam maay maay nekk palaasu ndeyam te maay nekk palaasu baayam euh, bañ ko waxantee moo ko sëñ tubaa yàggul dara dégg naa ca bis ba jaan ñëw matt ko fa la ko yàlla yemale soxna mi netaloo moomu tamit mooy nit ki njëkk a suul ci armée tubaa yi Mm-hmm. waaw foofu armeel yi nekk mm-hmm. booba foofu lañ ko yóbbu denc ko fa ginnaaw bi lañ dagg armeel yi fekk ko fa moom dagg armeel yi moom mu nekk ci biir moom kon moo fa jiitu mm-hmm. ci mboolee murit loolu itam ak jagle la goo xam ne euh, mën nañoo ne sëñ baara am na ko bi sëñ tubaa génnee àdduna tamit ci liñ mën a jàpp ci famille maam maaram mooy ki sant mbàkke ki njëkk fekkaat sëñ tubaa ci biir suuf maanaam bi sëñ tubaa sañcee tubaa moo ko fa njëkk a fekk bi sëñ tubaa ñibbee tubaa tamit moo ko fa njëkk a fekk dégg nga kon moom dafa am ay jagle yoo xam ne euh, kenn ëpplewu ko ko ci yàlla kenn ëpplewu ko ci yeneen kenn ëppalewu ko ci sëñ tubaa te yàlla may ko tamit sëñ tubaa sëñ baara moo ko njëkk a wan ab sët muy sëriñ muudu baara di bàyyi sëriñ xaadim muudu baara tey taysiir nga xam ne euh, sëñ baara magul ci doomi sëñ tubaa yi waaye moo ci am cëru moo njëkk am ab sët tudde ko sëñ tubaa muy sëñ muudu baara kooku moom ak ñoom sëñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma ak ñoom ñëpp moo leen mag mhm. sëñ Baara tamit moo njëkk a woy ak xasiida ci njabootuk sëñ Touba gépp ñëw wan ko baayam sëñ Touba moo ci njëkk a samp ab dëkk tamit mhm. ci dunduk sëñ tubaa la samp ab dëkk mhm. dégg nga loolu nag kon dafa nekk day wane ne rek euh, sëñ Baara boroom yi may la yoo xamante ne euh, euh, lu loxo mën a laal lu bët mën a gis la lu xel mën a daj la dadaa woy làngu arab way yoo xam ne kenn mënulu ko wax ginnaaw mm-hmm. tamit sëñ tubaa mooy ki ëppaat ay téere lu mu bind ay way mm-hmm. ak ay téere ci yoonu murit ginnaaw sañ tubaa mm-hmm. waaw a kii dafa way lu bare bare bari kon nag euh, loolu sax buñ ko bu ma ko toppee damay xaabaabal daa neex ci man <laughs> ma bëgg a wéyal waaye daal kooku mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara suba la màggalam ca Mbàkke Kajoor moo jur nag sëriñ Sidi Maxtaar di xalifa général des mourides jur sëñ Abo Madiane mii ci Touba yëmbal ak sëñ Muudu sëñ Bas Xujja Jang ak sëñ Abdoulaat Baar ak sëñ Basiiru baara mii mhm. ngeen dégg fii ñoom ñëpp moom mooy moom moom mooy ak sëñ Moustapha Finance ak ak sëñ Soxna Xadi Baara Kawlax ak Soxna Say Baara ñoom ñëpp rek maanaam moom mooy seen wayjur mhm. waaw moom lañ tudde tamit alaaji baaram sëñ Fàllu mhm. maanaam sëñ Fàllu bi mu amee doom ju njëkk da koo tudde sëñ Mudu Moustapha muy sëñ Mudu Basa Jang njaboot doomam ji ci toppaat da koo tudde sëñ Baara muy Cheikh moom ji baaram sëñ Fallou ah. waaw kon xam naa mu ngi noonu jaarul mm. laalul si si sujet bi nekk dafa ah, xuus si si si historique bi mais c'est c'est mm-hmm. important mm-hmm. xanaa ma ñëw seet saa Ndiogou rek ci euh, kàddu yi nga xam ni moom la ñu indi tey jii ginnaaw euh, Cheikh Baara moom euh, tracé nañu li di historique beeg jaar-jaar bi yëpp kàddu yi nga xam ne mu la fësal ci ci booloo rawatina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy njaboot gi macha allah mm-hmm. xam nga booloo dafa am solo parce que jël nga ko noonu ci melentaan yi maanaam euh, muy mm-hmm. xorondong mm-hmm. Euh, nga xamante ni seen booloo moo leen may euh, lépp lu ñu mën a def mm-hmm. ba nga xam ne nee nañ la léeg-léeg sax dara mën naa mucc cib yeew fekk na yeew ba avant muy kii c'est parce que day vérifier ndax xorondong nekkul fii ak ni yeew toll waaye balaa muy mëdd dara dana vérifier teritoire boobu ndax amul ay xorondong parce bu amee xorondong day abandonné parce que day xam ni bu ko mëddee ba tëdd moom mu ngi ci problème parce que mhm. après moom mën nañoo ñëw attaqué ko te buñ demee ba yeew di kii du benn melentaan moo tax muy ragal mhm. waaye mbooloo ba nga xam ni moom lañu doon mu nekk armée boo xamante ni bii fu ñu xas ba déplacé di dem mhm. da ngay gis doole ji nga xamante ni bii moom lay àndal eh, ñoom ñi nga xamante ni bii ñoom la ñuy wax melentaan yi nga xamante ni ñame doole booloo nag dafa am yu bari yu muy indi Euh, soñ bu indi na ci ay exemple ci euh, nag bi pour wane ni boo tàqalikook nit ñi boo tàqalikoo rek da ngay vulnérable mhm. maanaam euh, fekk yaa ngi ànd ak mbooloo rek léeg-léeg nga xamante ni bi doo da doo am jafe-jafe gis nga sax mhm. agresseurs yi bu ñu gisee borom moto bu supporté mhm. dañ koy moytu waaye ki nga xam ne dafa dem cundung rek dañuy am ak moom li nga xamante ni bii moom la ñuy wax ay kii dañ lay da ngay da ngay neex a song neex a daan. Mhm. Eh, ba ca pyramide yële nekk ca Égypte. Mhm. defar ko ba tey jaaxal na nit ñi nan lañ ko doon defaree ci jamono jooju. te mbooloo ñoo loolu yëpp. Mhm. mbooloo moom moo ko waral. parce que dañuy poser ay question ne bo nit ñooñu nan lañ waroon a mel. ba nga xam ni xeer ya ñuy indi ci désert ba. fañ ko doon jële nuñ ko doon transporter boobu yenn yu bari amutoon. mais force boobu leen la woon rek muy ay nit ñu suude di liggéey boole ko xam-xam melentaan yi nii ñuy déplacé it lu la jaaxal léeg-léeg nga ñëw fekk fenn nga ne melentaan yi nan lañ mën a déplacé nii loolu moom la nit ñi daan def à mhm. l'époque mhm. technique yooyu lañ doon def di déplacé ay montagne mhm. ay nit bu ñu booloo mën nañoo def lu ne mbooloo moomu nag nga xamante bi gis nga ni mu ko euh, ni mu jëlee njaboot gi delloo leen pour ñu ñaan sunu boroom ngir ñu booloo comme ni nga xamante ni bi noonu la xorondong yi mm-hmm. booloo mm-hmm. loolu dafa am solo parce que bu ngeen booloo noonu rek yéenay bokk même intérêt yéenay lépp yéen a koy bokk en mm-hmm. dehors que ni ñu gis leen ngeen ànd dajaloo mais day fekk ne yéenay bokk même objectif yéenay bokk même gis-gis yéenay bokk même lépp yéen a koy bokk nga xamante ni bu ñeen dama ne rek ñëpp xam nañ li nga xamante ni bi mooy li war loolu vraiment nekk loo xamante ni bi lu am solo la ma jàpp ni képp koo xamante ni kii njaboot nga ak koo mën a doon war nga aussi tamit jéem a tàggat sa njaboot ci lu mel noonu parce que mbooloo li wolof wax rek moo ci ne mhm. mboolooy doole mboolooy doole mhm. euh, ajaratu mu ngi mhm. noonu li nga xam ne moom mooy sujet bi ñu indi ak fi ci euh, toll mbooloo moom nga xam te ni si la ñu nekk mu mel ni nag sëriñ bi da si tàggat njaboot gi ba mu tam law tey jii ba tey boo gisee ñi nga xam ne ñoom ñooy murit yi moom xaw ma lu dul mbooloo mais ñoom moom euh, réussir nañ ko côté boobu waaw pour ñenn ñi foog nga am esprit de solidarité mm-hmm. ndax am na loo xamante ni bu la ci sa sëriñ wala say waaju tàggatee defe naa ni loolu ngay demee xam nga dañuy wax kenn du bëri ñett mën euh, kenn te ñaar du bëri kenn ñaar moo mën kenn te du bëri loolu mm-hmm. yëpp ñu ngi ñuy wan ni lu dul booloo booloo moo ko gën rawatina nag ci biir famille mm-hmm. rawatina ci njaboot gi gis nga des fois da ngay dugg ci benn euh, famille da ngay gis euh, euh, loolu yàlla moo ko moo ko def da ngay gis waajur boo xamante ne am na ku mu gën a bëgg ci doomam yi mais boo bëggee diviser sa njaboot rek waneel carrément wala nga jëfee carrément ni kii mooy sama xol wala dara li naan mm-hmm. njaboot goo gis am na ci ku ci xolu waajur wa mm-hmm. mais tout le temps dañ lay wax ni nëbb ko bu ko fësal ba ciy soxna mm-hmm. yooyu dencan ah, yooyu yëpp dañ la koy wax fexeel sa njaboot booloo da gis ay waajur yoo xamante ni pour seen njaboot booloo rek nekk benn say jaral na leen ñu dem ñaani ji wuti ay ñaan rien que pour seen njaboot booloo mu jox leen ko ñu lekk ñu booloo am na famille yoo xamante ni dañu indivisible mënoo ci mhm. dugg mhm. ba ba ba féewalee mhm. mais am na ci nag loo xamante ni xel moo koy mottali wala waajur yi ñoo koy def comme ni ko sëñ Baara defee ñoom ñoo koy def ci seeni doom ba nga xamante ni dañ koy lu dul booloo daal booloo ko gën rawati nag ci ay mbokk mu ngi noonu jërëjëf ajaratu jaajëfal ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo jota a participer ci loolu nga xam ne nii eh, moom mooy eh, tey eh, kaddu bi ñu indi tey jii di kaddu yi sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Mbacké xaadimu rasul suba incha allah ñu amal li nga xam ne ni moom mooy màggal gi fële ca Mbacké Kajoor ni leen ko waxee sànq rek ñun incha allah nañu ko topp suñu naataango Omar Kéré moo ñu toogal foofu lépp lu ci am rek dinañu ko indi incha allah ko kaddu yaa ngoog di li nga xam ne moom la ñu indi tey misaal bi mu def ci xorondom suñu borom daal di ko dippee ab euh, euh, ab euh, saar di suuraat daal di ko dippee suuraat ci ci ci alxuraanul karim xissa bi nga xam ne moom moo ci am diggante xorondom yi ak euh, yonente yàlla Suleymaan loolu yëpp euh, day wane rek xorondom ak euh, dayoo bi nga xam te ni moom la am waaye tamit misaal bi nga xam ne moom la sëriñ bi jël jëmale ko ci njabootam mhm. ñëpp rek war a booloo donc loolu aussi lu am importance la kon mu ngi noonu ajaratu loolu lañ fi indi woon mhm. tey ji di leen jox dig daje beneen alxames incha allah ci yeneen mhm. kàddu mag di la jaalee également si sa bi mm-hmm. kooku ki nga xam ne moom moo lese di sa di sa wéyjur aussi mm-hmm. kon ma la siy jaale bu baax a baax ba alxames bi di ñëw incha allah mm-hmm. ñu ngi lay jaajëfal moom Serigne Bara waaye Serigne Bass Serigne Bass mu Serigne Bara Serigne Bass Bara Mbacke nekkoon fii ci HLM Paris doomu Serigne Bara la waaye nekkoon sama xarit lool bëggoon ma lool kooku mooy bàyyi Serigne Aziz euh, dafa tudd si sama doomu rakk bi mardi moom Serigne Bass Bara nelaw ca eh, daf ko tudd samedi nelaw ca talaata ja donc euh, yal na yàlla yokk leeram ibataal maa ko ci euh, ziar ak sëñ Bas Baara Mbacke mbuub mu ndaw di ziar euh, ñëpp ci Mbacke Kajoor gi nga xamante ni ca la ñu jëm suba incha allah ñu dem nag ci li nga xamante ni moo di pajum cosaan